jàng xul huwallaahu ahad lu ci nekk ñetti yoon mel na ni ko xaj junni yoon umra junni yoon te des na ko musal ci ak ñàkk des na dolli wërsëgam te xaraf wu ci nekk des na ko ci bindal ñaari malaayka ñuy far ay ñaw di ko bindal ay yiw di yëkkati ay darajaam ba bis ba di dellu si déwén ak leneen ak leneen mbokk yi ku ci bëgg yeneen leeral nga dellu ci xurratu ayni bu Serigne Souhaïbou Mbacké page 142 yaa xayra dayfin ataa bil bishri wal madadi